lii di xeeñ nii su moytu dinañ yegg septembre la wax sans ñu am déclaration de politique générale kii di Ousmane Sonko premier ministre waaw ah lu waral loolu ndax Ousmane Sonko daal lànk laa wax bañ ba tëdd te naaj ba nee du teewee loolu ah waaw yéene kaay bi di le public tàbbeeg ñun si di ñu xamal naan amul fenn foo xamante ni la fixé nañu délai googee ngir premier ministre daal di teew ca péncum ndaw réew daal di def déclaration de politique générale wax ñu réew mi fan loo ko bëgg a yóbbu yan liggéey ak lan la ñuy xaar ci ñoom moom moomee waxu ci yàbbiwu ci ah loolu lum nu sax su moytuwul du assemblée nationale gii de déedéet dama ni député yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk assemblée du ñoo ñëwee ñooy recevoir Ousmane Sonko laa wax premier ah su moytuwul laa wax national googee assemblée nationale googee moom mooy recevoir Ousmane Sonko ay eh waay sax bés bi naan ma may ma may ma may ma ak ci génn premier ministre boobee ci assemblée nationale waaw li nga xamante ni moom mooy déclaration politique générale dama ne moom moomee Dakar sori laa wax waxu ci Abdou Sané bu Pastef moom sax ma ngay gën a dëggal loolu mu ñi xamal naan du ñu def déclaration politique générale tant que changé wuñu beneen assemblée laa wax professeur Maïssa Diakhaté ma ngay alerté lu muy alerté lu muy alerté du lenn lu dul les failles du règlement intérieur Aline Souaré moom mu ngi xamal ci biir yéene kaay bi naan xam li tax Ousmane Sonko bañ a làgg ci assemblée ba ngir def def déclaration politique générale loolu nuruwul dara ci lañ waxoon laa wax jubbanti jubal ak leeral ma ne loolu ci dëngte la laa wax dëngte ci même règlement intérieur la ki nga xamante ni moom mooy Amadou Ba def déclaration politique générale te boobee jamono yeewi askan bi moom moomee déposé woon na wàllub motion de censure enquête mel ni ku jox Ousmane Sonko kàddu ngir muy tontu coolooree man naa ñu nekkoon xaatimoon nañ ko ma ni marché yooyu laa bëgg tëggat laa wax contrat yooyee laa bëgg defaraat ba mu ne cocc ni coroñ ndax ci contrat yooyee la ñu jiite ñu naan loolee moom mooy priorité loolu di priorité ci nguur gu bees gi laa wax yéene kaay nga xamante ne premier ministre jox na wàllub directive ngir ñu dàq lépp li nga xamante ni wàllu marche budgétaire la ak financière ci axe du projet marché ak contrat yi nga xamante ni méngowul ak priorité régime bii fi ne yooyee marché contrat dañ koy annuler laa wax Ousmane mu ngi xamal naan contrat ak marché bu ñu bëgg mooy contrat ak marché goo xamante ni dina méngoo li askan bi bëgg ba noppi nak ñu mën ci investir waaw ci news diko fël nan ko wax nga dëgg suñu secteur pes bi ñu kat yi jamono ji ñu ci guddu gu gu la wax ko daanu ñu ndax lu ko waral lu ko waral du len lu dul ñom lañuy am ca geej ga la wax doyul ndax suñu accord yoyé dañ ko war renégocier waat accord de pes ci bopam ñi nga xamanteni mom moy union européenne ak sénégal dama ne dañ ko wara a la wax accord go xamanteni jox nañ européen 30 bateau 30 bateau ñuy jël ci geej gi lu toll ci 10000 tonnes ci at mu ne loolee soo ko xayma toll na ci ci échange bu toll ci million millions d'euros ci montant bi nga xamante ni dañ koo xayma ci minimum ñu comparé ko ci cinquante millions d'euros yi nga xamante ni ñu ngi koy këpp ci kees gi annuellement waaw ca Maroc pour accord similaire yooyu accord day waral ñi nga xamante ni moom mooy suñu peser réew mii pour ñu am adhéré ak ci li nga xamante ni ñoom ñoo ko moom loolu dina mel ni laa wax dina mel ni njëxal na ma te loolu waral nag mbir mi moomee wàllu accord googee dañ ko war a renégocier waat ngir Sénégal moom moomee gis boppam ci wàllu napp gi le soleil naan léeb mu leer de ne na seen xel dal ak réew mii dinañ ko jubal jubante te leeral lépp la waral soleil xëy ne fang ak ñu jox nataalu njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye xool ko tim réew mi gannaaw ba mu defee visite de plateforme pétrolière ca Sangomar dama ne bëgg la def lii quotidien naan ma mbir mi wàllu pétrole bi waaw 2025 la jàpp 2027 yooyee koom-koom yi nga xamante ni ñu ngi ciy xaarat na ci 576 virgule 3 milliards ëpp tële waaw waaw la ñuy xaar ci pétrole gi lu toll ci ci onze virgule milliards de baril waa la ñuy laa wax ci atab 2024 gi quatre millions de baril waa loolee la ñuy destiné ci marché domestique yi te sax yéenekaay bi mu ñu xamal nan wàllum njaay mi première njaay mi waa googee ñu ko xayma ci début juillet gee ñuy dugg laa wax loola war a kii di njiitum réew mi Bassirou Diomaye Faye maa ngay visité wàllu plateforme fële ca càngomar yéenekaay bi di Le Quotidien nee na ma gannaaw ay jàmm ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy walkat ya walkatu fëriñ waaw ñoom gannaaw ba ñu waxee ne dañuy grève ndax gis ñu seen bopp ca wàññite googee ma ne daxal nañ grève ga ñamasa di gaw i ah, waaw waaw ñoom mujj nañoo fekk ci état bi laa wax ca li nga xamante ni moom la bëgg laa wax ci wàñte ga te loolee yépp ka ci dox médiation du kenn ku du béy di añ waaw moom moomee moo wàcce tension ba ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy walkatu fëriñ ñi laa wax daal di fekk ci état waaw guur bay ki nekkul ci jàmm mooy rappeur boobu di Defrizi waaw moom Defrizi gannaaw ba mu génnee ca fête de la musique ba waaw la mu sol colka bu bon googee ba réew mépp daal di jël seen loxo dagge mañ allahu akbar lii ma ni des fraises yi moomee collectif ànd sàmm jikko yi porté nañ ko plainte des <laughs> fraises yi dama ne ñoom nee na lii des fraises yi def laa du dëgg du yoon loolu waroon nañu yóbbu ko ci yoon ak loolu leen yóbbu des fraises yi ci yoon ci yoon ci yoon bu leen fàttali ni daal pétrole bi pétrole bi ña ngay xayma xaalis ba te daañu commencé njaay ci juillet bi lu ci mënti am daal nay leer maara bëggul lëndëm